tegee ñetti waxtu ñuy waxtaan ak i xalaat ci ponk bi nga xamante ni dafa laal jigéen yu yëngu ci wàllu tasub xibaar ak jamono ji nga xam ne xarala yu bees yi ñoo ngay gën a law ki nga xamante ne moo bi bile atelier di ñëwaat ci solo thème bi. ndax ko wax média di nga wax li nga xam ne moo xew léegi te woon yu jël ko comme tem ci affaire numérique ci affaire digital ak yooyu foofu la ñu toll ère boobu la ñu toll donc dañu war Euh, poser les bonnes questions mais pour ce faire da ngay am nag ay nit yoo xam ne ñoom ñoo maîtriser li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee mooy les outils stratégiques moo tax tey ñu def panel bi pour waxtaan. ñu ngay woo jigéen yi ñu gën a bàyyi seen xel ca tàggat bu jëm si wàllu xaral yu bees yi. maanaam gën leen ñaax rek ñu gën ci bari gën ci farlu aussi bu fekkee ne da nga nekk jigéen nekk ci rédaction nga xam ne xëy na peut-être euh, bëgg nga formation te kenn jàppalewu la mais yow demal nga def en investissement boo xam ne formation bi da ko def ndax sa rédaction mais da nga ko def pour yow kese. Euh, rédaction yi wala si établissement yi maanaam école de formation yi parce que boo defee école de formation ba pare bu dugg euh, si rédaction yi euh, da ngay soxla yenn yenn information pour euh, mun a euh, jëmal sa sa information ci kanam. école yi itam ñoo ngi leen di woo ñi gën a xoolaat seen programme ndax mu gën a méngoog jamono. lii des rek mooy ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy kilifa yi euh, di saytu contenu yi ak filière yi ñu fay jàngale ñu gën a bàyyi xel ci filière contenu yi ñu fay jàngale ngir mu mën a méngoo ak li nga xamante ne ni moom mooy vision bu régime bi nga xamante ne ni moom moo fi nekk ngir yokk xarala yu yees yi. ngir waajal bëccëg bu ñu jaglal jigéen ñi di 8 mars ñi ameloon bile atelier xalaat nañ bu baax ci bile problématique ana nan la jëfandikoo xarala yu bees yi